ak pas-pas moo leen indi tey ku ne xam na li ngeen doon daj ci dëkk bi métti na trop mais defar rek moo ñu tax a man nag sama wax fi ma koy commencé mooy sant ak gërëm madame la maire avant tout woy woy woy day leer li ñu def nii xëy na ñeewental ñoo indi ñu fii moo tax li yéex waaye un an yi demi ci gën a woon ci xelam ba daje nañu wax nañu ko ba ne utal naa leen ci déracasement muy fii tal na wax mën naa kaa confirmer am na kenn koo xam ne moo yilif quartier bii daf ne madame la maire ne ni fii bu ñu fi samp sax pënoon ndax artisan yee moom dëggal na ko tey moo nekk nii ñu taxaw kon parce que tey Kaolack ñun sens bi ñu am mooy ba ñu yëkkatee desal nañ chute bu ñu man a indi am na réew yoo xam ne euh, région yoo xam ne amuñu ko mais dañuy cee nampatal gëmlooñu ko bañ yaakaar ko madame la maire merci encore une fois monsieur le ministre yëf yi métti na trop nag li ñu ci métti yëpp mooy jàmp gim jàmp ñu jotoon ay sommation avant mu demee nii waaye ngëm-ngëm moo moo tax bañ leen ñu jóg leen ñu jóg jàppale leen génn suñu bagaas daan leen suñu baat ba leen leen dëkk bi xam nga lu ko waral fii lañ yaakaar moo tax su ngeen ñu bëggee dimbal dimbal li gaaw dès demain commencé nañu rembale fii dès demain parce que am na ñoo xam ne ñu ngi fi tey joxuñu dépense seen kër yi ñii ñaari jabar ñetti jabar dañ ne est ce que duñ def ñun ñëpp darajaloo ñëw ci carrière bi tëdd fi xaar fi yàlla waaye duñ fa def doo ko seetaan monsieur le ministre doo ko seetaan gouverneur loolu du ngeen ko seetaan encore une fois damay sant préfet bi baax a baax gisuma ko ci mbooloo waaye naa ko sant naa ko gërëm parce que fu mu ci toll mu may woo di jokkoo ak man di dalal suñu xel di ñu xamal ne ne lii mu def ni day ndigal lu jóge ci kaw la rek waaye la ngeen am moo dàq lii gëm nañ ko nag ndax fii ñu taxaw tax ñu a mel nii rawatina site artisanal yi madame la maire yàlla na la yàlla ko mottale da nga xam ne ñun nga defal monsieur le ministre dès demain waxuma gannaaw suba de dès demain commencé nañu ràmbali fii Pandour waxtaan nañ ci dem ci guddi ñi ko war a ràmbali danañ ci ànd ak ñoom liggéey ci ak ñoom ba fii sotti artisan yi dugg fi am fu ñu liggéeyee loolu rek lañ ko waroon wax dinaa jël un million de francs mettre ko à la disposition de l'équipe municipale ñu jënd commencé. dafa fekk loxol borom. kon nag ñun dañuy def suñu loxo ba pare ñaan nag ministre bi mu jàppale ñu te xam naa dinañu jàpp ndax li ñuy ñëw léegi li ñuy ñëw yëpp mu ngi xool ni ñu koy defee ba mbir mi sotti. demee moom un million bi. bu fekkee ne dañ leen di booleeg ñoom ngeen xool ñi jaay carrière ak.

nan pam duut del ma contel chargé yi ñuy sorti ndax ñu xam ñaata la ñu rambalé ba paré dans le cadre de la RSE mhm. ñu waxtaan ak salé salé ñu tabaxal ñu gaar gaaru ceeb d'un montant de près de 300 et quelques millions 400 millions kay la presque 400 millions ñom ñi ñoo ñu ci jàppale mhm. liggéey bi presque pare na mais xam nga tay dañu né renouveau urbain mom loolu la yoré mmh. dañu bëgg a rafetal rek def fa installation courant yu baax mmh. def fa ay place yu baax parce que bëggatuñ ay ay mbaar ay nangam loolu mo xawoon sax yeexal mbir mi ak ndox mi ak électricité bi té loolu yépp dinañ ci liggéey ak Pape yaakaar nañ ne au plus tard fin mars même bu liggéey bi sottiwul la sori mmh. ba ñu numéroté lépp parce que tamit bëgg nañu dimbalé jigéen yi nga xam ne ñu doon yëngu ci quartier loolu rek moo tax ñu di ko def def au plus tard mars bu fekkee ne liggéey bi avant commencé na danañ déménager inauguré ko invité ñëpp ñu ñëw parce que boo tabaxee kër nag da nga koy sanc waaw sanc bi travaux yi des na tuuti aménagement espace vert hmm. entreprise bi livré gu ko hmm. donc loolu moo tax ñu xaw a ñëw bind nañu SDE bind nañu Sénélec jënd nañu matériel poto yeeg yëpp mairie moo ko jënd sur fond propre éclairé fii yëpp dinañ ko éclairé incha allah kon jàppale ne daal au plus tard mars hmm. yaakaar nañ ni travaux yi dina sori ba mën a tax ñu toxu li si des ay finition lay doon te lépp luñ ci def dinañ ko def ak yéen en rapport ak le gouverneur et le préfet le ministre mën a tuggeen ànd ak jërëjëf jërëjëf Mariama Sarr kontaan nañ mën ngeen ànd ak góor lañ ànd